Mesdames, Messieurs, très chers internautes, quel plaisir de vous retrouver sur Dakar Live TV Alburaq Events TV Allo Sénégal avec Africa Press bokki xarit yi ki Dakar, Lol, nii nag moom mooy Saliou Bey euh, Tay ñi ngi ci mariage doomam di code une actrice très connue ci Sénégal donc tay la ko euh, wéjuróom bu bu baax bi don ko may euh, borom kër ay nak Serigne Saliou mi suma ma jumul c'est la première fois wala la deuxième fois muy wax ci média depuis 2007 mi ngi ci média ci télévision bobu di Fadjri, télé radio. donc don fa responsable cadreur caméraman ni. donc mu doon kilifa gu mag a mag ci métier audiovisuel ak ci métier télévisuel donc moom la ñu seet si tey ngir waxtaan ak moom euh, Serigne Saliou nak yeen a ko doon gëna xamé ci turu euh, jinnay cameraman yi parce que Lamine Samba moom moko ko won ma fatali len nak du ñak yeen ñi seetaan da ngeen nek kan moy Serigne Saliou Serigne Saliou moom moy euh, Saliou Bey cameraman Walf TV doon and ak journaliste yi gëna a mag te nekk fële ca Walf TV ngeen gën ci ragné rek nga xamné ne modi di Lamine Samba parce que moom moko ko won jinnay cameraman yi papa ñu ngi lay nuyu bayila nga nuyoo ko internet yi lay seetaan waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen wax ne maa ngi leen sant bu baax daal ndax man je préfère travailler dans l'ombre mais nag comme sama doom la ñuy may tey il faut ma ñëw wax waaw ndax maram ak ay rakkam dinoo jaar fu bari ñu nekk ay xale yu ndaw maram mën naa wax ne maamam moo ko yar bi maamam làqoo ci la nekk ak man comprendre ndax maamam dafa bañoon joxe ko waaye maram dafa nekk maanaam doom joo xam ne moom dafa ma rus su ma su ma toogee nii sax suñuy waxtaan di tooñ ci moom fële lay toog ndax daf ma ko su bëggee ci dara ci yaayam ci moom lay jaar man tamit des fois su ma ko bëggee wax dara sax des fois dama koy wax ci yaayam maram bi mu duggee ci milieu showbiz bi ci la commencé sax xam ay génn ak yooyu mos maram mosul xam ay boîte ak génn ak affaire yooyu xam nekk doom bu ma déggal boo xam ne tey mën naa wax ne musuma mu man koo dóor musuma koo dóor xam nga koo xam ne dem ba am presque vingt et quelques sa doom mosoo ko dóor xam nga loolu jafe na ndax moom dafa ragal xamul loolu xamul xuloo xamul xeex mm. tey jii soo soo bëggoon am ko rek créer benn problème bu ndaw nga gis ko mu perturbé bu fi saas comprendre mm. moo tax euh, maanaam mu nekk nit koo xam ne daal maanaam macha allah quoi. Mm. xam nga soo amee sa doom mu déggal la ay rakkam tamit mel noonu Samba mel noonu comprendre Samba.

waaw kontaan rek loolu dama ci kontaan bu baax nga xam ne yaayam yaayam dama ko gërëm yaayam dama ko gërëm te xam naa ne li ma sonnal sonnal ko sama famille yàlla dina ko may leneen lu ëpp loolu sax waaw yaa yaayam dafa maanaam dafa dafa dafa sonn ci man quoi ak sama famille xam nga ku sëyal lu ma trent ans xam nga kooku am nga am nga am nga ay do ak mom ay doom yu mag xam nga ay doom yu mag quoi motax dama kontaan ci mom diko ñaanal yalla commerce bi muy def ni ak art bi muy japp ni yalla may ko ci yep ndam zahiran wa baatin wa ndax amna lo xamne soko waxe sax tam nga ciatu solo comprendre mais nak man sant nako duma ko duma ko sant sax mais sant na ko dal, waye dama koy gëna ñaanal yalla may ko ndax ndax li ni li ma def ni rek preuve la ci mhm. li ma def ni preuve la ci mhm. waaw yàlla baax na jërëjëf contane nañu wa contane na ci yeen tamit ma ngi leen di ñaanal sama dernière question question bi sa doom sànq lañ ko laaj code mu ne sama baay dafa jënd kër. dafa dafa jënd kër. Mhm. dugal ci sama yaay. Mhm. moom sax waxuñu woon ne que moom moo def loolu. Mhm. ci yow lañ ko xam. kàddu googu mu yëkkati dafa mel ni daf lay. sagal daf lay sagal. ci li nga xam ne. jàpp na ne sax yow yaa ko def. ci kaw yaay ban mbégte nga ci am ak tamit lii nga xam ne moom wax na ko. ban appréciation nga ci def. Wow, loolu su ko waxee dafa doon dafa bëgg sagal ma rek mais moom moo jënd kër gi sàmbat jàppale ko ci mooy ku topp ci moom ndax moom bi mu bi mu bi mu ñibbisee euh, Maroc bi mu jàngee ba ñëw xam nga moom moo ko taxawul ci léppam ci bi comprendre nga ba beneen frère bisa bi sax loolu la wax mu ne ma pa Samba su ñëwul woon kon lii man dama ciy sant yàlla bu baax xam ne rek ñoom gisaguñ dara sax xam nga ndax tamit euh, woy juróom liggéey na fi te tamit man euh, maanaam liggéey naa fi loo xam ne ci ci jàppale nit doomu aadama comprendre ndax li ma li ma formé ci ay caméraman kenn xamul nu ñu tool comprendre formé naa nit ba ba jour bi ñu demee reportage dafa ñëw ne ma euh, sëñ saalo su may am doom sa yoo laa koy tudd xam nga loolu loolu kii la xam nga ngay gis ay nit ñoo xam ne Tiwaan dem naa fa gis benn boy mu na ma grand man su ma su ma nekkee ci métier bi tey yow la am yu bari yu ma wax quoi su jur boobu sax dama dama dem ba sa Oustaz Mouhamed Ndiaye bu nekk Walf mi ngi taxaw xam nga man ma xam ne rek ñun dunoo war a góor góor góor lii nag li may wax nii nag waxuma ko pour vanter wu ndax loo fi jaaye am na ku la ko ëpp fuuf comprendre mais nag di nga wax loo xam ne tey jii métier mi ñu xam nga li ngeen def nii dafa rafet trois sites bokk di def benn interview xam nga loolu barewul xam ne ma la mais solidarité boobu soo leen ko defee mais da ngeen di dem da Mhm. Mhm. Mhm. Euh, euh, nga yàgg di taxawul ay ko du ko du ko wàññi mais des fois nag mu mu des fois mu xool des fois su xool mu xolu rànkiñ xaw ci dugg xaw dugg waaw xaw dugg ndax da ngay defar nit loo xam ne tey ji da nga naan kii kii sama tekki tekkeem ci man la jaar comprends mu dem ba mujj gi au lieu que sax mu mu jàppalee la mu wëlbatiku nekk sa noonu yow. xam le ma la da jàppale nit coaché ko ci ci côté yëpp xam le ma la coaché ko ci ci concept émission mu def nangam nangam nangam nangam ba mu am li mu bëgg di présenté nga naan ko lii lii lii lii lii lii xam nga ak ñeneen a ngi ñeneen léegi nga dem bu mujj gi moom defatul su lu baax. mu mu nekk sa noonu. te moom su du la waxal mukk ndax man mi yàgg naa ci métier mi mais kenn du ma wax ne Saliou wax na lii wala def na lii wala lii wala la comprendre ah. waaw damay góorgóorlu ba waaw bariwu ci ah. bariwu ci mais nag euh, sooy defal yàlla mm-hmm. hmm? yàlla soo koy defal mm-hmm. chaque jour même ñoom suñu rek suñu amul benn reconnaissance sax yow yàlla da lay may ndam ñu lay gis ngay dem mm-hmm.

jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew da nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam euh, kàttan bu néew la wala manqué man yu wala euh, sax jafe-jafe yi euh, gaaw a daanu seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu nga di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg si gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew